jërë ngeen jëf mbokki internet di dal leen ak jàmm ginnaaw jalak ban doon amal ci réew mi rek ba tënk ponk ya nga xam ne rek moom lañ jot a déggoo ba jébbal ko njiitu réew mi Macky Sall moom mi la nag jotoon naa yëkkate ay cadre rek daal di koy jëmale rek ñenn ci askan wa nga xam ne rek ñoo jotoon a génn ci mbedd mi rek di xam ne ne képp ki nga xam ne rek jàpp nañ la ci nga doon def naka dul noonu loolee rek danañ ko lijjanti ak yow duñ la bàyyi benn yoon rek nga daal di dem loolee nag rek la daal di yëkkati di xam ne nag rek moo mën nekk ndax képp ki nga xam ne rek jàpp nañ la ci duñ la ci bàyyee noonee nga daal di dem moom mi di njiitu réew mi Macky Sall nag kàddu yooyu la daal di xamle ba tey ah, njiitu mi Macky Sall nag yëkkati ay kàddu moom milee di xamle ne rek ne troisième mandat ba nga xam ne rek gars yi ñu ngi koy jaaba jonge saa su nekk moom milee bala ciy wax rek dañoo julli rek ba pare mu daal di siy soora addu moom njiitu réew mi loolee la xamle nag ñenn rek daal di yëkkati ay kàddu ne ki nga xam ne rek moo di njiitu mi Macky Sall dafa xam rek ne bu yëkkatee ay kàddu daal di xam xamle ne moom mi la dina bokkoo ci élection présidentielle yi di ñëw mën naa salfaañe li nga xam ne rek moom lañ jublu muy tabaski bi loole rek moo waral mu daal di xamle ne moom mi leen nag dina bàyyi rek ba nu julli tabaski bi ba pare mu daal di yëkkati ay kàddu daal di koy jëmale ci askan wi waaw wala déet.